من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ñu ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid toll ba tey ci buntëb baaw naan ak nàndallu ma jaa fi listisqa bil anwa tey ci kàttanu borom bi ñuy jël xadis bi nga xam ne abu daawuda moo ko solo abu hurayra nettali ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na xadis bi hukmuhu marfu inna allaha qad azhaba ankum ubayyata aljahiliya wa fakhraha bil aba innama huwa mu'minun naqi aw fajirun shaqi الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فهم من فهم جهنم أو ليكونن أهون على الله من جعلان sunu hadis bi tey mbokk yi ba tey rek mi ngi ñëw di sof di dëgëral hadis yi ko jiitu woon ci tere mbir yi tere jullit yi lépp loo xam ne dafa bokk ci jaahiliya ci ceddo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla seen boroom dindi na ci yéen rëyug jaahiliya ubayyat al jahiliya al al kibrul jahiliya yàlla dindi na ci yéen rëy ndax rëy caddo moo koy def yàlla dindi na ci yéen tiitaroo ay bàyyi comme ñaar yooyu yàlla dindi na ko ci yéen waru leen di xullee ba mu dalaat seen kaw kon nga gis ne rëy ci ceddo la bokk tiitaroo ay baay ci ceddo la bokk faxrul aba tiitaroo ay baay tiitaroo sant tiitaroo deret tiitaroo meen loolu ci jikkoy jaahiliya la bokk yonent bi nee na innama huwa muminun taqi benn da ngay nekk jullit bu set wecc bu ragal yàlla aw faajirun shaqi wala nga nekk kàccoor bu texee di su yàlla jëndee ci yow ay jikko yu set jikko yu bon yooyu kon loo war a nekk muminun taqi ku gëm yàlla ku set wicc su fekkee jikko yooyu nag dafa bañ a denc yow lan ngay nekk faajirun shaqi kàccoor bu texee di kon looloo tax ñu war a moytandiku am nay jikko am nay melokaan am nay comportement am nay jëfin am nay doxalin ku gëm yàlla du ko mel du ko dox du ko wax du ko jëf surtout nag loo xam ne yonent bi moo ne lii jëfu ceddo la waxoon naa leen dars bi passé lan mooy ak ceddo lan mooy ak jaahiliya yonent bi nee na annaasu banu aadam wa aadama xuliqa min turaab yéen ñëpp ay doomi aadama ngeen annaasu banu aadama nit ñëpp doomi aadama lañ nga gis tey ci sunu société am nay nit ñoo xam ne sax dañuy jël yonent bi alayhi salaatu salaam di ko génne ci doomu aadama ndax réer léeg-léeg ñu laaj la benn question semaine comme semaine bi passé am na ku ma woo téléphone mu ne ma ñun de dañuy werante fii ci fi ñu toog ma ne ko lu ngeen di werante werante da baaxul mu ne dañu ne ñii ma toogal dañu ne yonent bi yàlla ci suuf la ko bindee yàlla bindewu ko ci leeram man nag nee naa leen ci leeram la ko bindee mais ñoom dañ maa weddi ma ne ko ñi la ne yonent bi ci suuf lañ ko bind ñoo ñoo nekk ci dëgg yonent bi yàlla bindu ko ci leeram de yonent bi ci aadama lañ ko génnee aadama ci lan la ko yàlla bindee ci suuf yonent bi moo ko wax wax jaa ngi nii wér këng annaasu banu aadam ñëpp doomi aadama lañ est-ce que yonent bi bokkul ci nit ñi ci la bokk annaasu banu aadam ñëpp doomi aadama lañ wa aadama xuliqa min turaab yàlla neen aadama ci suuf laa ko bind man leer na yonent bi nee na kullukum min aadam wa aadama min turaab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyi ko aadama ci suuf la bàyyi ko kon na leer ne doomu aadama yëpp ay mbindeef lañ mbindeef yëpp yàlla naa ngi leen génn ci bàyyi aadama amul kenn ci mbindeef yi ku wiiri jaar beneen côté donte ne da ngeen koy dégg loolu dara wéeru ci ku neex nag nga tagg sa waay tagg sa kilifa gënal ko sax yonent bi wala nga gënal ko aadama waaye na lu mu mun a doon daal fexeel ba boo koy tagg rek na nga koy yeew ci aadama moom bul wax na dafa jógee kaw asamaan bul wax na ci biir géej gi la génnee bul wax judduwul yàlla nee na ñépp ci aadama lañ bàyyee ko aadama ci suuf la ko yàlla génnee hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci aadama la génnee parce que dafa juddu ñu xam kan mooy woy juróom bu góor ñu xam kan mooy woy juróom bu jigéen ñu xam kan mooy maamam ñu xam papam bi mu toll ci takk soxna fan la demoon ban dëkk kan la yónni woon ñan ñoo ko takkali soxna soxna soosu noonu la tudd ñu lay nettali bi mu toll diggante ëmb ba ni mu amee doom kon kéem aleykum salaam kon kéemtaan amu fi yonent bi nit la comme ñun yàllaa ko bind mu nekk mbindeef comme ñun mu dund ni nit ñi dundee mu faatu ni nit ñi faatoo ñu denc ko ni ñu denc nit ñi waaye moo gën ci nit ñi lu tax ndax yàlla moo doon communiquer ak moom foofu la ngëneel gi ñëwee am maa leneen ñoom moom ñoo yem ci lépp dafa am ay wayjur ñu am wayjur mu am meen bu mu bokk askan ñu am askan mu am xeet bu mu bokk ñu am xeet bu mu bokk mu nekk nit ñu nekk nit mu daan feebar ñuy feebar mu deele ñu deele mu dee sax ñun tam dañuy dee kon nit la comme ñun innama ana basharun mislukum lan mooy différence bi yuuha ilayya mooy différence bi waaye qul innama ana basharun mislukum loolu yonent bi moo ko wax kon képp na yonent bi yàlla du ko bind ci leeram waxul lu am ndax yonent bi waxul loolu amul benn xadis bu wér bu yonent bi ne man yàllaa nga ma bind ci leeram yonent bi yàllaa nga ko binde suuf si mu bindee bàyyi aadama kullukum min aadam wa aadama min turaab beneen xadis baa ngi nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne annaasu banu aadam wa aadama xuliqa min turaab doomu aadama yépp ci aadama lañ bàyyeekoo aadama ci suuf la bàyyeekoo mu ne la yadana raj rijalun faxruhum bi aqwaamin ngal la waaye nit ñi nañu bàyyi waaye tiitoroo ay nit nit ñi dañoo war a bàyyi tiitoroo ay nit tiitoroo ay nit amul njëriñ yàlla daf ko tàq complètement ci suratul baqara tiitaroo nit man diw mooy sama pap man diw mooy sama yaay man diw mooy sama maam ñun diw lañ famille bi diw ñun ñooy diw diw daal amul njëriñ bu mu la taq sax nga raxasu ndax dafa niin yàlla daf ko tere fan ñi doon tiitaroo ay nit yàlla mu ne subhanahu wa taala ci suratul baqara tilka ummatun qad xalat ñooñu ngeen di wax de génération bu paase la laha ma kasabat ñoom lañ defoon ñoom ñoo ko moom yéen ñii wala kum ma kasabtum lu ngeen def yéen yéen a ko moom kon amul différence munoo bokk ci ku baax ba baaxam googu mu jëriñ la yow soo baaxul tukulóor nee na ñaamanam ñaamataa ko daananam daanotaa ko lekkal ma du dem nelawal ma du dem sëyal ma du dem loolu yow yaa koy defal sa bopp jaamu yàlla tamit ak mbaax yow yaa koy def soo baaxulee kële dem na yoonam dem nga abu jahlin lan la bokk ak yonent bi ndax xam ngeen abu jahlin lu mu bokk ak yonent bi papaam ak papa yonent bi ñoo bokk kon moom lan lu yonent bi la bàyyam la waaye anam mu ngi safara bilaal lan la bokk ak yonent bi dara loolu diine waaye xoolal ni ko yàlla yëkkati parce que diine la moo tax yàlla mu ne yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi foofu mooy ngëneel ngëneel daal mu ngi amee ci ragal yàlla yonent bi nee na nit ñi nañu bàyyi tiitaroo ay nit xanaa xamuleen ne tiitaroo nit innama hum fahmun min fahmi jahannam ñi ngay tiitaroo dañuy nekk ay matt yu yàlla di xambe safara kon di fëgg dënn naan ñun ñooy ñoom diw ñun ñoo bokk kër diw wala diw a ngi nii wala kii xanaa xamuleen ko ci njabootu diw yonent bi nee na loolu ñi ñu nar a xambe ëllëg jahannama ñoo koy def sallallahu alayhi wa sallam kon doomu ndey xadis bi ñëw na ñu koy sof ci li taxoon bunt bi jóg mooy ñeent yi toron yonent bi doon tere ñeent yi mu waxoon dar sa passé ne ku ko def def nga ceddo mu ne ku ko bàyyiwul rek yow ceddo nga tiitaroo meen ak askan taw ne biddéew yi la ak nga am ko faatu ngay yuuxu xadis bi dafa ñëw di sosu ci xadis bi passé su fekkee ci buntub tey bi xadis bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee mooy xadisu zeyd ibnul xaalid mu ne صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إسر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مترنا بالنوع كذا وكذا فكذلك كافر بي مؤمن بالكوكب حيث الحديث تيجي درس بي zeyd ibnu xaalid moo nu ko nettali aljohani zeyd sahaaba la woon mashhur bu siiw mi ngi gaañu atum juróom ñett fukk ak juróom benn am na ñu wax leneen lu dul loolu ba muy faatu mu ngi amoon juróom fukki at ak juróom ñett moom Zayd moo ñu nettali xadis bi nee na benn bis ci benn place bu tudd Xudaybiya salla lana rasulullah yonent bi jiite nañu ñu julli suba julli goo xam ne moom yonent alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko jiite keneen jiite wuñ ko ci barab bu tudd Xudaybiya Xudaybiya benn place la ci wetu Makk soriwul dara ak xaram bi Makk moom mu ne julli suba la woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ñu koy jiite ci dëkk boobu nekk qariya ala hududil xarami ci wetu kaaba gi mu ne tey boo fa demee dëkk boobu mu ngi tudd samis noonu la tudd wa kaana fiha sulhu xudaybiya nee na foofu lañ doon signé pacte diggante yonent bi ak waa quraysh diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bokkaalekati mag caatam juróom-benneel ci gàddaay yonent bi nee na waaye pacte yooyu yonent si ñëwoon indil na jullit ñi ubbeeku gu yaatu xéewal yu dul jeex kon ki nettali xadis bi muy Zeyd nee na yonent bi moo ñu jiite mu ne bi ñu sëlmalee julli ñu ñëpp ñu seetlu ne ndox dafa nekk ci suuf si maanaam bu tawee ba sabet ku génn fajar di nga xam ne biig da doon taw ndax jeexital bi asamaan bi di def ci jaww jéeg suuf si mu ne ñun ñëpp ñu gis loolu mu ne kon taw boo xam ne mu ngi doon wàcc ci niir yi di jóge ci asamaan daal di daj place yëpp place yooyu foofu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ne fala man saraf ba mu paree julli rek aqbala ala nnaas mu daal di jublu ci nit ñi fa qaala moom yonent bi mu ne hal tadruna maza qaala rabbukum ndax xam ngeen lu seen borom wax mu leen di jàngal ndax xam ngeen lu seen borom wax fii di ngeen jàngaat maandute saxaaba yi ak seenu ragal yàlla ñun boo nekkee ci mbooloo léeg-léeg ngay jàngale wala ngay waxtaan wala wala wala wala nga jékki-jékki laaj ab laaj da ngay gis ci mbooloo mi ku ko xamul daal di yëkkati loxo ñu ne ko bismillah mu tontu ñu ne ko du noonu de nga gis keneen yëkkati tontu ñu ne ko du noonu de keneen yëkkati ñu ne ko du noonu de amma saxaaba yi ñoom bu leen yonent laajoon xam nga lan mooy seen nekk seen tontu allahu wa rasuluhu aalam laaj bii nga ñuy laaj de yàllaa ko yonent ak ñoo ko xam ñoom du ñu nangu wax nangam la duñ ko nangoo wax bu ñu leen laajee ab laaj dañ naan yàllaa ko yonent moo ko xam ñun xamuñu moo tax yonent bi mu leen ne xam ngeen lu seen boroom wax ñu ne yàllaa ku yonent moo ko xam moom yonent xaala mu ne leen seen boroom nee na xaala xaala xaala gu njëkk gi yàlla moo ko moom ñaareelu xaala bi yonent bi xaala gu njëkk gi yonent bee ko moom ñaareel bi yàlla moo ko moom qaala yonent bi nee na qaala rabbukum seen borom nee na asbaha min ibadi muminum bi wa kaafirun sama jaam ñi daal ñaari nit rek lañ li ñuy bari bari nit ñi ci kaw suuf ñaar kese lañ ñaar kese jaami yàlla yi ci kaw suuf yépp ñaari xeet lañ muminun bi wa kaafir ki ma gëm ak ki ma weddi wala ñëpp lii lañ jullit yaa ngi nii yéeféer yaa ngi nii gëm yàllaa ngi nii yéeféer yaa ngi nii amul beneen amul beneen kër ñaari yee rek noo fi nekk waaw muslim wala kaafir yonent bi nee na yàlla da ne sama jaam ñi dañoo xëy asbaha min ibaadi yi lenn ci samay jaam xëy xëy nañ min muminun bi am ñu ma ci gëm ba kaafir am ñu ma wetti waaw hadis bi lu jar a bàyyi xel la ci dars ci baat yi tegu ci xadis bi di ñëw ñii gëm yàlla waa ñoom mbokk yi lan lañ def ba gëm yàlla mbokk yi ñii weddi yàlla lan lañ def ba weddi yàlla ah loolu mooy wax bi weddiwuñu yàlla taxaw ne ñun yàlla gëmuñu la ñun ay yéeféer lañ déedéet ñee gëmuñu yàlla pour taxaw ne yàlla ñun ñoo la gëm ñoo ngi nii allahu akbar gëm nañ la déedéet maanaam ñaari kuréel yi yëpp daf ci am ñoo xam ne ay jëf lañ jëf gëm ñee tamit jëf ay jëf daa di weddi kon ci jëf yi ci la ñuy gëmee ci jëf yi ci la ñuy ci la ñuy weddee yàlla kon loolu tax jëf yi ñu war ko xam tey am na jëf yooyu jëf daf lay dugal ci lislaam mais am na jëf yooyu def daf lay génne allahu akbar te looloo bëri ci jamono bi ay jëf yoo xam ne genn wàll gi yëpp day génne jullit ñi ci lislaam te nit ñi seen yoon nekk ci dañuy bombardé rek di dem bokk na ci lii gëmloo nit ñi mooy li yonent bi wax ni mu ne fa amma man qaala képp ku xëy wax ne mu tirnaa bi fadlillahi wa rahmatihi ñun de boo gisee mu taw ci xéewalu yàlla ak yërmandeem lañu yàlla wàcceele taw fa zalika muminun bi kooku ku ma gëm la kaafirun bil kawkabi kooku dafa weddi biddéew yi ku wax léegi nag ku xëy waxoo taw bi biddéew yoo ko indi waaye nga ni sëñ bi moo ko indi bi nga nee na taw la taw loolu da nga ko fi dégg ñaata ay ministre yoo toog ci kanamu sëriñ président yónni leen ñu ñëw ñu ne waaw gis nga daaw biñ fi ñëwee am na lu ñu la waxoon bi nga ko defee rek dafa am mooy waxoon nañ la nga ñaan mu taw bi nga waxee rek taw bi taw na yooyu ab jullit na ko bàyyi yàlla moom moom tawam kenn du taw ku dul yàlla loolu la yonent bi doon tere sahaaba yi moo tax mu ne képp koo xam ne taw biddéew yoo ko indi yow yéeféer nga taw biddéew mënu ko indi taw yàlla moo ko mën a indi ndax yàlla moo moom biddéew yi yàlla moo moom mbindeef yi biddéew mënul dara moo tax gis nga Ibrahim bi muy weddiloon nit ñi ay ay lu dul yàlla ci biddéew la déparé bi biddéew bi suuxee mu gis weer wi génn mu ne haza akbar kii mooy kii mooy sama borom bu mu gisee jant bi gën leen rëy lu mu wax bàyyi naa ñi ñëpp jëm naa ci sama borom ndeke ñii duñ dara kon jant weer biddéew mbindeef mënuñu dara yàlla mooy borom mbir mi moo tax yonent bi ne leen képp ku xëy ci yéen daan ne biddéew yi ñoo indi taw bi kooku weddi na ma waaye képp koo xam ne dafa xëy gëm ne yàlla moo indi taw bi kooku gëm na yàlla fa amma man qaala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mumin bi kafirun bil kawkab wa amma man qaala mutirna bi nawi kaza fa zalik kafirun bi muminun bil kawkab képp ku wax ne biddéew sàngam moo tax mu taw ngelaw sàngam moo jaar sàngam moo tax mu taw ñoom diw de ñoom ñoo ñaan moo tax mu taw ñoom diw ñoo suul nangam moo tax mu taw ñoom diw ñoom ñoo def nangam moo tax taw bi ñëw képp ku wax loolu génn nga ci lislaam yonent bi nee na yow loolu nga wax moo indi taw bi loolu nga gëm su fekkee biddéew bi biddéew yi nga gëm bu dee leneen lu mu mun a nekk loolu nga gëm moo tax mbokk yi laa yajuusu du dagan li ahadin ci kenn an yu diifa afaal allahi ila gayrihi du dagan de ci ñun teeg subaak ginnaaw suba mu gaaw mu yàgg ñu gudd fan ñu faatu du dagan ci ñun ñu jël jëfi yàlla di ko jox am mbindeef lu yàlla rek moom lu yàlla rek yayoo laa yajuusu li ahad du dagan ci kenn an yu diifa muy jël afaal allahi jëfe yàlla ila xayrihi di ko yóbbu ci keneen ndax keneen mënu ko kenn mënta wuutu yàlla laaj leen Suleymaan mi ko waxoon ne yàlla dama lay ñaan nga may ma ma dundal àdduna bi yàlla mu ne Suleymaan mënoo ko mu ne yàlla may ma ma def ko weer yàlla mu ne nee naa la mënoo ko nga ni weer mu ne semaine yàlla mu ne dégg mu ne yàlla léegi ñetti fan yàlla mu ne waa léegi mënoo ko mais essayel benn fan Souleymane jël na 4 kilomètres carrés xam ngeen dafa amoon pouvoir kattan dafa amoon doole ndax jinne yi la doon àndal Souleymane togg ko ay lekk 4 kilomètres carrés lu tax parce que dafa bëgg a dundal mbindeef yi yàlla di dundal bis boobu bi lekk yi paree Souleymane mu ne yàlla pare naa yàlla mu ne ko séddale ko mu ne nu ma koy séddale yàlla mu ne ko da nga yuuxu rek nga ne yéen mbindeef yi yàlla yi yàlla doon wërsëgal ñoo leen ngeen jël seen lekk tey maa leen di dundal Souleymane bi mu yuuxoo baatam boobu mu daanu benn mbindeef ci géej gi moo génn daa di lekk li Souleymane toggoon yépp ba lekkaale table yeeg paaka yeeg bool yeeg kuddu yi ba pare nag ne ko Souleymane ragalal yàlla ci man lii nga ma jox benn yàlla ñaar la ma doon jox te kenn moo lekk guñ ñeneen ñi lekk guñ Souleymane su jóot xam ne yàlla donc moo mun a dundal doomu aadama yi moo mun a dundal mbindeef yi wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha benn boroom xam-xam da doon tukki mu dem ba ci benn garab mu toog mu séen benn picc di naaw di dem ci beneen garab di yóbbu lekk picc bi di naaw di yóbbu lekk di naaw di yóbbu lekk moom mu war a jaaxle picc bi kan lay jox mu lekk ci kaw ndekk ci kaw garab gi benn jaan bu gumb moo fa nekk picc bi di ko indi lekk muy lekk jaan bu gumba moo fa nekk ci kaw garab gi picc bi di ko indil lekk waaw mu ne yenn saa yi ngay gas suuf si nga gas ba mu xóot benn sax bu ngand daal fay génn wala sax boobu ku koy jox mu lekk foofu mu doon lekk ci biir suuf nga ko fekk kan moo ko doon yóbbul foofu mburu ku ko yóbbul ndox mu naan pourtant mu ngi dund ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen yenn saa yi nga gis benn mbindeef ci àll bi wala ci géej gi ñiy filmer géej gi wan la leen loo xam ne la xawla wala quwwata buñ koy buñ koy peese ci ay kilo dina dem ay tonne dootuñu wax kilo mais nañ naan tonne loolu kooku lan lay lekk te yàlla mi ngi koy jox mi ngi lekk mi ngi naan nga dem ci àll bi gis gaynde yi gis ñay yi xoolal yenn saa yi ñëw la ñay boo xam ne te mu ngi dund mi ngi lekk mi ngi naan kon yàlla mooy borom jaam yi yàlla moo leen fi wàcce assuré leen seen dund amul kenn koo xam ne yow yaa assuré sa dund bopp amul keroog bi doomu aadama yi jéemee fipp ne ñoom ñoo yor seen bopp keroog la doomu aadama torox hadis la law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa tarux bitaana yonent bi nee na bu ngeen gëmoon yàlla dëgg dëgg gëm yàlla dina leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc yi picc yi yenn société la ñuy liggéeyee ah mën ngeen gis picc di grève ndax dañoo yokk mburu ndax dañoo yokk ceeb pourtant xoolal picc day lekk ba suur denc lekk ci put gi su demee lekkal doomam mbokk yi kon du dagan ñuy jël li yàlla moom di ko jox keneen law ala sabilil majaz aydan mu ne kenn ku mu mun a doon ci ñun même bu fekkee ne yooyu ay melokaan la yu ñu war a takkal nee na loolu du dagan du dagan yàlla lim moom moom rek moo ko moom waruñu jël li yàlla moom ñu koy jox nit waruñu jël kenn di ko teg fi yàlla nekk waruñu wàlla waruñu wàcce yàlla aussi di ko tollaleeg jaamam yi anzilu naasa manazilahum teg leen nit ñi seen place mbokk yi فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت أن هذا باطل ولا تصدق أيضا mu ne bu yeboo mu leer ñu kenn du jël mbindeef di ko nuroog yàlla kenn du jël ndimbalu yàlla tabaraka wa taala ni yàlla di dimbalee nga jox ko nit nee na yooyu ay mbir la yoo xam ne yépp neen la kenn waru koo dëggal taw yàlla moo koy indi suul yenn saa yi nga gis asamaan xiit sénégalais yi am programme ñu ne ñu ne gaaw leen ngeen suul xorom balaa muy taw suul leen xorom mus leen ko gis gunaas laa dëkkoon xam nga gunaas bu tooyee day taa su asamaan si xiinee rek nga gis gaa yi jël xorom di suul waaye bu mu taw waay xorom mun naa téye taw asamaan si day taw ba xorom yëpp seey kër gi ma dëkk bi ci ndox mi duggee ma koy defaraat kër gi ma dëkkoon maçon yi di gas rek ñu génne ci suuf benn saaku xorom bu ndaw muy saaku xorom yooyu saree yi di jaay ndeke ñi ma fa wuutu ñoo fa suuloon saaku xorom ma di xoolal xorom bi yàq nañ ko rek te terewul ndox dugg na ci kër gi ba ñoom ñu toxu man ma ñëw fi gaa yi ndox du xorom mënul téye ndox gaa yi ay béjjén ak ay saafaraak ay nangam ak nangam mënul téye lu yàlla bëgg yàlla lim bëgg kenn mënu ko téye kenn mënu ci dërëm amul garab su yàlla ne bisu dund bisu dund la bisu dee bisu dee la garab amul su yàlla ne lii mooy am loolu mooy am lépp lu ñuy gis ci àdduna bi mu am nii mu neex ñu ñun julli ñi mu naqaruñu ci ndogalu yàlla lay daw nii la ko yàlla bëggee mu am noonu lay amee loolu mooy iradatullahi mooy nammeelam loolu moo moo moom moo moo wér waaye su yàlla nammee dara nga ne loolu yàlla namm du am da ngay son xoola firawna bi yàlla nammee daaneel nguuram gisaanekat yi ne ko benn xale bu góor liir mooy juddu góor la moom day moom mooy màgg daal lay daaneel yan yan ndigal la firawna joxe ku judd rey leen ko yuzabbihuna abnaakum wa yastayu nisaakum wa fi zalika balaaun min rabbikum azim est-ce que tere na li yàlla bëgg amul firaaw na ñaata doom yu góor la rey ah rey rey rey rey rey rey rey rey ba sonn te terewul ci weer woowu muy rey ci la yaayu Muusa ëmb ci at moom muy reyaate ci la yaayu Muusa ëmb ñu koy garde terewul doom ji juddu ñoom fekkewuñu xoolal yàlla ne yaayu Muusa jël ko teg ko ci ga kees nga teg ko ci dex gi dex gi dama ko yóbbul ci waa ji reyaate ma xool ndax dina ko rey xanaa sax xel lim nangoon mooy dama nga nëbbu ko ci ci xunt yi dama nga denc ko ci ruq yi nga denc ko bu ko kenn yëg waaye teg ko ci kees boo ko tegee ci kees sax lan la waxoon loolu la waroon wax yóbbu ko bëgg bu buntu pale déedéet nga teg ko ci dex dex kan mooy jël liir di ko teg ci dex ku ko fi defoon tey jii bu ñu la jàppee loolu lay def dañ lay jugé condamné la à mort parce que yow da nga rey nit xale bu ndaw bi nga koy teg ci kees nga koy teg ci dex boole wa ko kenn waaye xoolal yàlla mu ne après kees gi dina ko yóbbu ci firawna mi rayaat allahu akbar kon programme mu yàlla dara mënu ko téye lu yàlla bëgg mooy am jullit na gëm loolu moo tax dafa bokk ci sunu ngëm al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi bokk ci li ñu sonal mooy mënuñu nangu ndogalul yàlla wala ñun li yàlla di dogal ci ñun li baax yàlla defu ko li bon rek la yàlla di def fii koo fi dégg rek muy wax yàllaa ko dogal dañoo biiral doomam wala ñu tëj doomam police wala ñu tëj jëkkëram wala ñu dax ko fu muy liggéeyee wala yu catastrophe yu garaaw yooyu yu bon yooyu nga dégg ñi ne ñëw na yàllaa ko dogal xam nga lu yàlla dogal mënoo ci dara gëmal yàlla mais bu fekkee nag jamono nag diplôme yi la waaw ñu ne kii ndeyam a ko liggéey ndeyam ni mu sonne ci kër gi xamoon na ne dina am lii wala kii papaam ni mu ko géré école yi la ko doon fayal ah fii la jógee immaculée la jógee dem fële peut-être trop trop trop trop trop di wax yi kenn xamul yooyu mooy bokkaale gi ñu nekkee du ñu delloo yàlla njukkal lu dul lu bon ñu askane ko yàlla te yàlla amul lu bon yàlla du dogal lu bon du ko def waaw yàlla amu ko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayya fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun yàlla amul lu bon moo tax ku def lu baax mu jox la lu baax lu bëri parce que daf ko yor soo defee lu bon mu bàyyi la ak benn bu bon bi yàlla amul lu bon lu muy joxe du ko dogal xamu ko munu ko du ko def ixwaan yi kon jëfi yàlla tabaraka wa taala moom dong moom mooy ay jëfam du jëfi keneen yàlla li mu bëgg ci waxtu wi mu ko bëggee allazi aradahu llahu majiihi fii ci yàlla waxtu bi mu bëgg mu ñëw waxtu woowu lay ñëw bu fekkee ci yërmandeem la wala xerañam lu mu mun a nekk loolu lépp ci xéewali yàlla yi tabaraka wa taala la bokk fal fadlu warrahma sifataani lillahi wa mazhabu ahlu sunna waljamaa annama wasafa allahu bihi nafsahu wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min sifati zati kalxayaati walilmi wasifati alafali kalrahmati allati yarhamu biha ibadahu kulluha sifatu llahi qaimatun bizatihi laysat qaimatun bi gayrihi nanu leer yàlla dafa yor ay melokaanam melokaan yooyu bokk na ci alfadlu warrahma mooy ngëneel ak yërmande wallahu zu fadlin jàng ngeen ko zu rahma ñaari melokaan yi yàlla moo ko moom yàlla mooy borom ngëneel yàlla mooy borom yërmande moo tax mu ne ñaari melokaan yi melokaan yi yàlla la yoonu ahlu sunna wal jamaa ñoom dañu ne borom bi tabaraka wa taala lépp lu mu melal boppam wala yonent bi melal ko ko yàlla tabaraka wa taala melokaan yu sell yooyu la yor comme xayaa yàlla day dund wala ilmi yàlla mooy borom xam-xam sifaatul afaal rahma yàlla day yërëme waaw day yërëm jaam yi ñépp ay melokaan la yoo xam ne nag ci jëmmam ji la taxaw waaye nekkul ne dañ koy jël di ko jox ab jaam yàlla bi muy tagg yonent yi lu tax mu tagg leen dana yonent yi ni ma melal sama bopp ni ma melal sama bopp yonent yi noonu lañ nangu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin yonent yi melokaan bi yàlla melal boppam dañ koo dëggal moo tax yàlla boole leen ci yàlla ñaanal leen jàmm ñoom yonent yi ndax dañoo dëggal yàlla ni mel kon jullit yi niñ fekk alquran ak sunna wax ko ci melokaani yàlla yi ko war a saxal ñu bañ a jël ñoom yi seeni xalaat ak seeni melokaani bopp di ko melal yàlla tabaraka wa taala fa kullu ma xatara bi balika fa allahu bi xilaafi zalik laysa ka mislihi shay lépp lu sa xel ak sa xol xalaat ne yàlla nii la mel yàlla mu ngi ci ginnaaw loolu yàlla nuróowul ak loolu loolu moo tax saxaaba yi amuñu woon problème ci tawhid yi ñu am problème tey ci asmaullahi wa sifaat yi saxaaba yi amuñu ci woon problème ndax dañoo déggoon alquran benn aaya rek boo ko déggee da ngay xam ne yàlla du moroomu nit ñi laysa ka mislihi shay ñii lay dañuy gis yàlla wala ñu naan ñoom ñooy yàlla wala sëriñ yi wax kaay leen ma wala leen yàlla mun déggoon aaya woon nga xam ne yàlla kenn mënu ko gis ci àdduna bal àllaaxira lañ koy gis mais fii day da ngay gis nit ñi di gis yàlla bari mu ne man gis naa yàlla wala peese nañ sax loolu léegi naan man yàlla laa yow yàlla nga te yàlla nee na laysa ka mislihi man yàlla nuróowuma ak dara li ngay gis ba ne yàlla la loolu du dara wala li nga toog ba gis ko ba nga génn suba nga ni man gis naa yàlla loolu dara la wala dara yàlla ne ma nuruwuma ak loolu borom xam-xam yi ne la lépp loo xalaat ne yàlla nii la mel yàlla mu ngi ci ginnaaw loolu kon noo mën a toogee nga ni yow gis nga yàlla beneen bi yow nga toog nga ni man yàlla la yàlla mu ne laa yudrikul absar man bët du ma gis léegi tey nit ñaa ngi lay gis yow naan la yow yàlla barki démb dégg naa ci Facebook benn jigéen bu taxaw naan diw mooy yàlla yaa ngi ne yaay yàlla nit ñi di yuufu seetaan nga ko waaw kon xam kon kon dëgg kon yéen seetaan ngeen ko doo leen gisu leen ko naan ko yow yaay yàlla nit ñi di tàccu loolu jaaduwul loolu jaaduwul mbokk yi yàlla du moroom yàlla du moroom ki nga naan mooy yàlla dafa feebar barki démb lañ ko doon faj ki nga ne mooy yàlla barki démb la fase benn jabaram nan la nekkee yàlla ah yàlla dafa tourné bëtu nit ñi ci ci alquran bi ñuy wax isaa ci boppam yàlla la ak yaayam yàlla la yàlla mu ne laqad kafara allazina qaalu inna allaha salisu salasa ñu ne yàlla ñett la bay def ni seen loxo yi di def nii ah di julli ci baay jeeg doom jeeg ruu bu sell bi au nom du père et de fils wala du noonu waaw yàlla mu ne ñooñu ay yéeféer lañ ñu ne isaa yàlla la yéeféer lañ kon ñu ne diw yi mii yàlla la lan la yàlla mu ne yéen da ngeen dof xanaa xamu ne isaa yaayam dañuy lekk kaana yaakulaani taam dañuy lekk lekk dañuy lekk ñam ku lekk ba sa biir fees ku reer a cere baase ba trois heures du matin après boo demee léegi nga ñibbi sa soxna tegal la cere baase nga dóor ba ni këj munuñ la pot ndox nga naan nga tëdd ba deux heures du matin après kon doo yàlla ah yàlla teggin lañ jàngal foofu mu ne kaanaa nekkoon na ñoom ñaar yaakulaani dañuy lekk apaama ñam kon kuy lekk ñam après ñam bi fu muy reese mais toilette kon doo yàlla kon loolu ay mbir la yoo xam ne fekk jànguñu tawxiid duñu mën a wéral su duñu mën a wéetal suñu borom duñ ko mën a def mu nekk kenn duñ ko mën a màggal duñ ko mën a teg place am bal guddeeg bëccëg dañuy nekk rek di làmbatu ak di def yu bon yoo xam ne dañuy yaakaar ne yàllaa ngi gërëm fekk bàkkaar dong lañ ci yëgee ixwatal iman anna ni'amullah xéewalu yàlla yi laa yajuusu du dagan an tudaafa illa ilayhi wahdahu yàlla dong mooy wàcc xéewal yàlla mooy borom xéewal yi moo ko moom koo fi dégg ñu ne borom la yàlla moomul de yàlla da koo dénk te ay fane ngi ñëw nit ñi leer leen na kii yàlla da koo dénkoon yàlla dina ne doñ alal ji wala mu ne ko doññet moom après ana alal bi kon dañ koo dénkoon te lépp yàllaa ko moom walillahi xazainu samawaati wal ard te yàlla nee na wa ma bikum min ni'matin fa min allah waaye nit ñi yaarifuna nicmat allahi summa yunkirunaha dañuy xam ne lii xéewalu yàlla ñu koy weddi fii ñu toog nii kan ci ñun fii ci jàkk ji yaa jékki benn bis nga dem jàpp julli ñaar ak ne yàlla maa ngi lay sant ndax sama bët yi nga ma may yàlla maa ngi lay sant ndax sama nopp yi yàlla maa ngi lay sant ndax sama gémmiñ gi yàlla maa ngi lay sant ndax sama tànk yi yàlla maa ngi lay sant ndax sama loxo yi yàlla maa ngi lay sant ndax may wér daf may nga ma wér gu yaram yàlla maa ngi lay sant parce que may nga ma soxna yàlla maa ngi lay sant parce que may nga ma njaboot yàlla maa ngi lay sant parce que dafa kan ma sant yàlla ci ñun ci loolu yonent bi bu duggoon toilette sax génn toilette toilette mu génn bu tànk càmmoñam lay génnee tànk ndeyjoor waaw buy dugg jàkk mu dugal tànk ndeyjoor jógal jógal moo ci ginnaaw nga topp toogal foofu yonte buy dugg bu doon génn toilette tànk càmmoñ lay génne ndeyjoor ndeyjoor buy dugg ci jàkk mu dugal ndeyjoor buy génn càmmoñ bi lay génne jàkka ji ndeyjoor restaurant suy dugg ci duus mu ne bismillah allahumma inni a'udhu bika min alxubusi suy génn mu ne gufraanaka alhamdulillahi allazi azhaba anni al aza wa afani am na ñu ko yemal ci gufraanak ñu ne alhamdulillahi allazi azhaba anni al aza wa afani xadis bu daif la waaye loolu lan lay tekki mooy yàlla maa ngi lay sant yow mi dindi ci man sobe yi nga may ma jàmm bi nga waree bi nga bëggee soxla sa bopp boo demoon yàlla téye yëf yi mu bañ a génn nu muy danooy doom nu muy demee urgence lañ la jëmee ndeysaan dañ lay opéré xoolal da ngay dem hôpital nga fekk ku tëdd lan moo fa lan moo ko fa fekk dafa bëgg a tuur ndox mënul tuur ndox dafa bëgg a saw mënul saw ñu ne ko demal nga indi deux cent mille allahu akbar bu fekkoon ne kenn ku nekk ñun boo waree demal ba fa nga fay deux cent mille pourtant yenn saa yi am na ay duus yuñ tabax ci dëkk bi da ngay dox ba jaar nga soxla sa bopp rek nga ñëw ñu ne la eh tuur ndox juróom dem duus fukki dërëm wala cent franc wala gisu leen duus yooyu gisoon ko ci biir lépp du jeex tey jii nag bu fekkoon ne ab malaaka taxaw boo waree dem duus mu tëj sa ginnaaw gi ne ko kirij nga ne ko lii daan la mu ne la cinq cent kon fu ñu jëm ah kon fu ñu jëm mbokk yi nga bëgg a xool ki yor bët ne la eh yow démb ba léegi fayoo mu tëj sa bët yi nga fayul doo fi xool yow da nga yabaate nga bëgg a dégg ki yor nopp yi ne këj yow barki démb loo ma waxoon da nga ne wala wala ngay tëdd nga fay léegi nga ne nga la hawla wala quwwata inna ki yor ngelaw li nga bëgg a nooyi mu ne non non pourtant bu ngeen taalee courant Sénélec bu weer dee da ngeen di fay wala bu ngeen lakkee téléphone Sonatel bu weer dee da ngeen di fay wala waaw ak yeneen ak yeneen daa léegi ñun ñu ngi nooy ngelaw yàlla kenn fayu te kenn doon alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ya rab falaka alhamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi kon nañ leen góorgóorlu mbokk yi ñu delloo suñu xel ñu xam ne yeneen bi lu ñuy jàngal lépp suñu njëriñ la wallahi diine lislaam lépp lu ñuy teg rek suñu njëriñ moo ci nekk ñu sant yàlla ci xéewalam yi xam ne moom dong moom mooy borom xéewal yi moom yàlla subhanahu wa taala moo ñu sàkk moo ñu tàggatal jant moo ñu tàggatal weer moo ñu tàggatal asamaan moo ñu tàggatal suuf boo laajoon doomu aadama yi sax wala in saaltahum man xalaqa alsamawati wal ard la yaqulu wa saxara samsa wal qamar la yaqulunna allah boo laajoon nit ñi kan moo bind asamaan kan moo bind suuf kan moo tàggat jant bi kan moo tàggat weer wi ñoom ñépp li ñuy alku alku dañ leen leen lay yàlla waaye bu jëf yi desee rek ñu jël jëf yi daal di jox keneen ko dul yàlla ñu ñaan yàlla mu defal nu tawfiq loolu moo doon sunu dars tey ñu jéggalu ci njumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekkee am na ay question